waaye yi nga xam ne itam nag ñoom lañ nekkal ci bitim réew ndax waa diaspora lañ te liggéey bu am solo bii ñoom ni ñu ko déggee bi ñu ko déggee rek bi mu duggee seen nopp rek dañ cee daal di woy si loolu nag du kiimaan ci liggéeyu lislaam waaye du kiimaan it ci liggéeyu yoonu murit eh, liggéeyu lislaam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko yónnee jigéen moo ko njëkk a gëm jigéen moo ko njëkk a jàppale jigéen moo njëkk a joxe bakkanam ci lislaam waaye yoon murit wi lu mel noonu daf caa feeñaat jigéen joxe na fi bakkanam ngir yoon wi taxaw liñ fi mas a liggéey jigéen ñi ñoo ci man moo tax euh, loolu du doon kiimaan ñun ndax woote buñ fi mas a woote rek gis nañ ne ci jigéen ñi taxawee ak itte jañ ko jox loolu nag xëy na cër la bu leen yàlla cërale ci lislaam cëral leen ko ci yoonu murit euh, ñu di leen ci ñaanal sun borom gën leen cee saxal te gën leen cee dimbale euh, ndax jàpp naa ne sax boo ëllëgee jigéen ñi ñooy mujj xeet li góor gi ndax ni ñu nangoo ak yenee ji ñu am ak pas-pas bi ñu am ak nangu gi ñu nangoo joxe seen alal joxe nangu gi ñu nangoo joxe seenu ñaq nangu gi ñu nangoo joxe seen lépp te duñ ci xool dara duñ ci séntu dara lu weesu ngërëmul yàlla ak ngërëmul seriñ Touba loolu jàpp naa ne lu rëy la loo xam ne euh, ko seetlu ba seetantal ko danga leen naw bu baax a baax a baax. kon nag sone si ñu ngi leen dalal jàmm di leen nuyu bu baax di nuyu mbokk yi ngeen bàyyi ko bu baax di am mbëgte ci dalal gii ñu leen dalal fii di leen ziyaara bu baax a baax te rafet li nag seen taxawaay bu baax a baax rawatina ci fondation bi nga xam ne yow ca nga bàyyi ko wax naa la ko léegi dañuy liggéey liggéey bu am solo ba noppi dafa mel ne li ñuy wax walub déggaj la day mokk te doo dégg këruj lu am solo la yàlla nañ suñu borom gën a jàppale kon xam naa dañ lay jox kàddu gi rek nga sànni ci ay kàddu incha allah. asalaamaaleykum maa ngi siyaare di jégglu di siyaare sëñ Muntaxa di ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér di siyaare sëñ Afi Buso suñu jëwrin siyaare sëñ Abdoulaat ak waa ñëpp maa ngi leen di siyaare di sama waajur muy xalifa sëñ Omar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal ñëpp rek soxna ami mi dafay ñëw indi añu daayira bi nga xam ne añu jumaa ji ajuma ji waaw moom la fi indi di ci soññ nag ñëpp di ci soññ sëñ Fallou Diop mi nga xam ne moo ko laase ñëpp ànd ceeg moom di ci siyaare tamit sëñ Assane di siyaare sama mbokki jigéen yëpp nag di ci woo ñëpp nag di ci waa waa Europe waa senegal waa rawatina nag waa Touba sama mbokki jigéen ñi soxna yi maa ngi leen ciy woo ñoom ñëpp waaw di ci siyaare ñëpp nag lu ci waaye mën a kii rek nga def ko ci kon ma bisimilah rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp eh, di ziyaare ñëpp eh, di sant eh, sëñ bi Bousso ñu ngi lay sant bu baax ci dalal gi ñu ñu dalal fii ak sama mbokk taalibe yeeg suñu waa kër yi ñu ngi sant bu baax di sant suñu Tuubaa tey sant suñu mbokk taalibe yëpp di sant suñu asan ñoo boole ci ci ci liggéey bi euh, léegi nag ñu ngi soññ suñu euh, mbokku taalibe yi mbokku jigéen ñi nekk Amérique nekk Europe fu soxna mën a nekk ñu jàpp ci liggéey bi euh, jàppale jumaay Tuubaa ji jàppale sëñ Asana mbokku taalibe yépp yi liggéey ci biir jumaa ji ndax képp ku lay woo ci liggéey sëñ Tuubaa kooku lu baax la la bëggal te taw féex taw féex la yokkute suñu defaru tey ak kon lu waay mën na ci jàpp te ku bind it na woo sa xarit bu jigéen mu bindu Euh, bu say waajur de ñu ngi dund nga euh, bind leen joxeel leen bu fekkee nekk ñu fi it nga bind leen ñu nekk ca barsàq daanaka ñu ko gën a soxla sax li tax ma jël ñaari àjjuma yi moo doon loolu damaa jël benn pour man jël euh, jëlal beneen pour samay waajur yi nekk barsàq ndax comme que ñu ñu nekk fii ñu nekk fekk ñëpp suñ Tuubaa mooy suñu yaakaar tey ëllëg kon képp ku la woo ne la ñëwal liggéeyal suñ Tuubaa loo mën ak loo mënul def ko ci te xam ne fay gi moom bu ñëwee say set ak say setaat ak setaat ñëpp euh, dinañ ci jariñoo kon te aju añu jumaa ji moom tubaar fakal la liggéey la bu taw féex bu am Pastef kon nag mbokk taalibe yëpp ñu nekk Amérique Touba Sénégal Europe ñëpp ñu ngi leen di woo ñu jàppale ñu ci incha allah te ñaan sëñ Touba nangul ñu te euh, su yeggale ñu suñu yéene incha allah jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokku taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp euh, di ñaanal sëñ tax yal na fi yàgg lool te wér yal na dund ba yem jamono ci barke Cheikhul Khadim euh, di ko ñaanal rek bépp murit saadix ak bépp jullit di ñëw rek ci woote bi nga xamante ne sama xarit bi soxna Ami Gumbala jóge États-Unis daf ma ci wootey muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa boo xamante ne dafa jëm ci añu àjjuma yi nga xamante ne moom dañuy indi ci jumaa ji ñu bëgg rek jigéen bu nekk boo xamante ne yaa ngi ci kaw suuf rawatina taalibe murit yi ñi nekk biir réew ak ñi nekk ci diaspora bi kenn ku ci nekk mu bindu ci ba àjjuma ju jot añ yi mun a ñëw Eh, ginnaaw liggéeyal Serigne Touba nag day njëriñ lu àndut ak lor ñun ñëpp rek war nañ ko def yu saalihuna fil xayraat njëkkante yiw ñëw liggéey liggéey bi eh, jëfal ci suñu bopp waaye jëfal tamit suñu wayjur yi nga xamante ne génn nañ àddina ak ñi nga xamante ni tam wax dëgg yàlla ñi ngi ci kaw suuf te seen doole matewu ko lii nag ñu ngi ci woo bépp jigéen boo xamante ni rek yaa ngi ci kaw suuf di ñaan yal nañ ci am gàttanduk sëriñ bi jërëjëf torkal torkal